yéen itam jigéen ñi na ko nekk nangul sa jëkkër noonu sa amee góor gu gëmul kàddu yàlla gi te gis jabaram di dund dund gu sell boole ci wek ko loolu dina ko gindi ci lu àndul ak wax bu seen taar aju ci col maanaam létt yi wurus wi mbaa yéere yu rafet waaye nay taar bu sax bu nekk ci biir di xol bu nooy te dal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 mi yéeg asamaan toog fa ndeyjooru yàlla mu tiim malaaka yi boroom sañ-sañ yi ak boroom doole yépp